après di ko liggéey loo ba su demee si school bi sax dafaa nekk di xalaat man su ma demee kër lii ak lii laa war a tombee lii ak lii suma yaay daf ma daan dama dem ko laaj yana ko yàlla yërëm ma ne ko yaay yow lu tax yow dañu def comme sa morom mu ne ma ne soo amee doom bu jigéen dan koo toog di ko tette ne ko lii ak lii moo baax mu ne ma soo amee sa doom soo ko wanee ne man óolu naa la xale bi sax dafaa dem buggal dafaa dem dugal dugal boppam si lu bon waaye dafa ne suma yaay na ma lii ak lii اسمه في الامنين السلام عليكم ما نغي نوي ني في توك ñep man la Aissatou Diallo um, representative from SOS High School am topic bi tey am na solo lol di ko rafetlu bu baax a baax parce que xale yi li ñoo jànkuwanteel si kër yi bari na trop surtout xale yi jigéen ñi waaye man dama foog ne waxtaan gi moo ñaaka waxtaan gee des suñu yaay dañ ñu war a dimbale ak suñ pérénti ñu waxtaan ak gaay e torop di ñaan xale itam ñun xale ñuy déglu suñ pérénti bu baax a baax parce que xale léegi macha allah doy nañu waar di ñaan pérénti itam ñu jàppale ñu di ñu teete di ñu waxal jàppale ñu suñ ligi eh, suñ jàng bi ba suñ jàngee ba wàcca maaga teral leen loolu laa amoon pour wax jërëjëf salaamaaleykum mbooloo mi man la Abdoulaye jógee Latir Koundaaw basic school topic bi ngeen di see topic bu am solo la wante lu gën a bëri si lu ko dee def mooy nit ñi dañ ñeneen ñi dañ dem bu boo diine di joxe seen xale yi ñu sëy because ñeneen ñi soo waaye lu tax nga joxe seen xale yi ñu sëy ñu ne diine dafa wax ne xale dafa war a sëy teel si as long as early as reach na puberty rek dafa war a sëy dañ ko dee bées foofu ñeneen ñi ñu ngi koo indee as chastity angale ñu ngi ko wax ca si ñu mm-hmm. ne ñu ngi ñu ngi ko wéer ne xale bu jigéen foo sëyam dañ ko war a fekk mu nekk jaan ñu ne foofu lañ ko biir ni su ma teelu te joxe suma xale bi mun naa am su demee si kanam ba si kanam mun naa yaaxa boppam te su loolu amee environnement bu ma dëkka duñ ma respect because nit ñi bëri ñoo fa dee ñëw kër bés bi ñu kontaan si loolu noonu waaye da nga gis ne xale bu jigéen mu ngi wax ne ñeneen seen papa yi duñ dee waxtaan ak ñoom indi sens ne su papa bi duggee rek ñu daw dem si waañ bi mbaa ñu dem feneen ñeneen ñi si bëri sol yi ñu dee sol seen papa yi duñ bëri bugga soo su papa bi di ñëw moo indi papa mu ngee ñëw ñu bëri daw dem nëbu papa bi papa bi su ñëwee léegi-léegi sax mu laajte man dafa dee am suma kër suñ kër da nga ñëw léegi-léeg papa bi ñëw laajte ana diw ana diw ku nekk mu ngi dugga si néegam mu ngi toog because lu ñu sol papa bi su ñëwee ñëpp daw ñi fa des mooy booy si su ñëwee mu waxtaan ak ñooñu waaye ñeneen ñu bëri tamit dañ dee daw waxtaan bi comme saa yaay dinañ leen blame foofu bi ko yaay yu bëri am na yoo xam ne duñ ko dee bëgg a wax ak seen xale yi suñ la waxaa sa xale yi comme ça soo ko waree wax ne ko soo ko waree waxtaan moom affaire góor ak jigéen da ko wax ne buñ laal sa bi buñ lii buñ lii doo dee dem to di point bi direct li nga wax leen lan moo tax soo kii nit nga wa soo liyee lii ak nit da biir ak lii ñu ne la ñu wax mooy soo demee si waxambaane oytu leen de soo demee si néeg bi boo toogee bu sa tànkee bu sa tànkee dem si kaw mun ngaa toog sa tànkee nekk si suuf while you can do something else ñu bëri baat bi lañ dul bugga di ko waxtaani ak seen xale jigéen dañ dee waxtaan ak ñoom waaye duñ leen dee waxal réalité lan moo dee tax te da nga gis ne daf dee tax xale jigéen yi suñ génnee ñu dem duñ dee xam luñ dee def da ngaa dem ba si school bi mbaa nga dem ngay wàcce school paa benn paa mbaa suma classe gi ñëw taxaw si yoon bi sol seen benn jiin mbaa seen lii ñu oola jékkati yow musoo am hundred dollars sa kër musuñ laa jox dollars mooy poverty bi moo leen musoo am hundred dollars ma yëkkati five hundred may la ko obviously ëllëg su ma la ooyee feneen di nga ma toppa te ñu bari ñu ngi am néegi yoo néegi seekare yoo xam ne ni foofu lañu dee defee seen yu uh-huh. bon yi da nga gis ne su loolu amee nga gis ne xale bu jigéen bi ñëw biir su béeree loolu moo dee indi morbidité bi ak mortalité bi ñeneen ñi feebar yi ñu si dee jëlee mooy morbidité feebar yi ñu si dee jëlee ñeneen ñi bi ñoo am doom ñu dee because their pelvics are not eh, gissing mature enough mm-hmm. pour ñu mun a am doom waaw da nga ne yooyu yëpp problème la yoo xam ne daf dee am ñeneen ñi ñu ngi ko incité security ñeneen ñi ñu ngi ko def ne security because parents yi bëri ñàkk bi moo tax ñu ngi ko jëlee foofu noonu because da nga gis ne léegi naa jël suma xale bi rek ma jox ko nit pour man ma mun a nopp suma dépasse wàññeeku naa ko jël rek génnee ko si kër gi jox ko nit mu amee ko léegi su ko kooku amee kooku dina ko mun a toppatoo yow toppatoo bi da dee nopp bëgg a sa xale bi doo dee bëgg a mu sonn te yaa ngi ñàkk te yaa ngi am doom time bu yaa ngi am ñetti jabar ñeenti jabar ba tey yaa ngi seedaa ñu sonn obviously ku ñëw rek da ngaa bëgg nga joxe ko pour mhm. mu sikiyoo pour doom bi bu mu sonna ñene ñi loolu moo dee tax ñu ko dee def te loolu moo dee indi yeneen yu bëri jërëgéen jërëjëf waxtaan bi fi mu nekk nii dafa mel ni ki man ebe nañ man dikte te li ma fi maa war a jëm waaye ba tey dinañ lu nekk rek dañ ci dee njàmbaas wax yi maa ko doon déglu te seegana wax yi nii lu métitlu la ci réew mi maa ngi daan jàngale family life education te bañ ko tàmbalee waxtaan nañ ci wax yu mel nii ba ña nga xam ne dañ daan dugg ci ñoom di leen waxal ñu ngi leen daan wan garab gu teel a am doom naka la dee mel ñooy def dee xar ci digg bi du nekkati su dee mango la du nekkati mango su dee leneen la du nekk loolu ñu ne nag di leen doon wan naka la nit mel cëri nit dafa am foo xam ne ci laa mën a nangoo lu nekk xaaleel du juddu mu gis dafa am jamono bët yi mun a ubbeeku mu gis yaram itam noonu la mel problème bi nag li ko amee ni ko kenn waxee fii ñu bare dañoo laaxu ci diine te fekk diine santu la loolu diine may na la xale ba mut bu njëkk ba bañ ko daan def xaaleel soo gisee mu am fukki at ak juróom dafa toll ni yaay seere mut te fekk fukki at ak juróom léegi nag jamono ji dafa eegaatul ndite boo déggee ñuy wax ne kañ la nit di dunda léegi fi mu nekk ni ci biir réew mi góoma ne mut na juróom ñaar fukka li ëpp ci dunda nga jël xale boo xam ne mu ngi am fukki at ak ñaar nga saraxee ko ci lan mee ko góor loolu loraandee laa indi te ñépp seede nañ ko ne dina yaaxa cëri xale bi ba xale ba du nekkaati nit te yu bare dina ko dal muy ko nëbbandi te bugg ko wan kenn loraande dal di ñëw lii yëpp dañ ko war a gestu sëy kenn bañu ko waaye teel gi moo ñu lor te moo ñoo sonal xale bu jigéen boo fi laaj ci fii ñi fi toog ni xale ndaw yi ku nekk dina la wax ne bugga naa am jëkkër waaye nag teel gi moom la xale yi te li ko waral moo di ne waali tàmba dafa ne moo nekk góor ci biir kër gi su xaleel dam ba amee nangam dafa war a génn kër gi kanaay waali tàmba du yow kee naa bokka jur ñaar ñoo bokka jur waxtaanal ak sa